Uras Info. Ribari Gao. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Djangadjou te Notre force. Le traitement de l'info. ànd ak ci tool yi di climat bi ñun ci tool yi di ànd ci tool yi loolu dina jox population bi courage ne am nañ ay njiit yu leen yëg am nañ ay njiit yu leen yëg su ko soxla ñu ngeen yëgee rek seen ak seen liggéey ak responsável pelo movimento, o grande movimento estudantil é responsável por ele. Quem sei que é, né? é o Leo Calhaim, da Engenharia da Beira, da Famada ficou microempreendedor, por vice-presidente, Maximiliano Maximiliano, da Partido de Mulher Maximiliano, outra rede mundial, Nico Maximiliano, que era am sécurité wóolu ko ba lu mu def rek nañ ñeme ko nañu ko ceeroy loolu tam ca ragal yàlla kon hmm. hmm. eh, ñu ngi gërëm Macky eh, dëgg-dëgg hmm. waaye itam ñu ngi gërëm ñi ngi turé itam ci seen ànd bu dëgër gi nga xam ne dafay delloo si ci ñun dafay jël aussi population bi njëriñ te ñoom loolu lañ bëgg ci ci biir réew mi euh, kontaan itam nga ne seen bés yéen dé suñu bés ñun de seen bés la yow bés yi sénégalais bu nekk la ndax sénégalais bu nekk bëgg na yëg ci xolam yoonu te yàlla mu xam dana fekk nag comme ni ko waxee rek ñu liggéey bi liggéey daara liggéey loolu yéen a ngi liggéey ci leneen donc kon ñëw ci daara ji pour ne am na yow ngeen a dëgg la jàng jànguñ ko waaye suñ suñ alal a ngi nii suñ jëmm a ngi nii suñu xol ngi nii defal leen ñu ko foofu ngeen di def seen jëf comme ni ñu jël na junne la ko ne ko ko defee loolu rek la waaye ñun ñëpp yal nañu yàlla may ñun ñëpp yal nañu yonent yàlla yal nañu yàlla may teranga yonent yàlla yal na la teral suñu sax xam ngeen ne itam teranga bi gis nañu ndax Sénégal ci région bi daanaka ci pays pays yu ndaw yi la pays bu riche waaye alla di wacce taranga e diine Senegal taranga ci bàyyi ji ngeen am réponse ndax da ngeen gis nationalité bu nekk ñëw Sénégal ndax gëm nañu ne bu accès Sénégal seen soxla ci yoon yi fay fay faju ah donc man loolu yàlla terale Sénégal kooku nag Sénégal yi ñëpp na ko yëpp parce que culture occidentale beeg jaxasoo ci suñu bopp yi ba xam ne ñun lu ñu war a def ak lu ñu war a def waaye waaye bu ñu xam ne li ñu war a def li ñu war a def léegi nag xam ne Sénégal yàlla def na ko cër def li réew lii de pèlerinage lii de pèlerinage taxam ngeen lii de pèlerinage lan lay tekki xam ngeen loolu lan lay tekki ci chrétien xam ngeen Makka lan lay tekki ci chrétien xam ngeen ci ci jullit yi xam ngeen seize dañ lay tekki ci jullit yi nekk na mbir yi itam war na xam ne lan lay tekki ci Sénégal yi teranga bu fi yàlla wàcc na euh, di ñu gërëm Macky di gërëm Mimi Touré ndax ñoom tamit yëg nañ loolu ba lépp loo xam ne mën nañ ko ci bés bi danañ ko jullit yi te kenn lañ ci yéen kenn lañ ci yéen lu ngeen lu ngeen bëgg a def rek pour yonent bëgg nañ ko def yéen tamit pour yonent ndax ñun ñëpp yonent rek lañ am na ah ñëpp yonent rek lañ am na ah kon nag lépp loo xam ne dinañu àggali ci moom euh, ñu koy ànd ñu ngi demee ne xam nañ mën nañoo wax nit ñi jaar nañ fii jaar nañ fii comme Covid bi ñëw na euh, ministère yi la ñuy dem jaar nañ fii jaar nañ fii ñun xamuñu ah ñi itam xamuñu lii jaar nañ fii ah loolu rek la ah se भी ये के किस्म ci kawe ci ay doom yu dëgër doom yu bëgg seen réew doom yu bëgg seen région Uras Info Ribari Gao Uras Info l'info à temps réel Uras Info Django du te notre force le traitement de l'info